Euh, jërëjëf kon imaam. Mm-hmm. bala ñoo ñëw ci Ahmed Khalifa Niass. Mm-hmm. ñu ñëw ci scandale bi nga xam ni xaw ma question la xaw ma aji bu day ruube xaw ma. Mm-hmm. ndax 7 milliards yi muy laaj président Sall ndax joxoo ko ab yóbbal Marie Le Pen yow bi nga déggee loolu oustaz da nga cee defu jàngal wala nga jàpp ne aji day day ruube. waaw jàpp ma ne day ruube ndax bi ma ko gisee dama ne lii dafa normal ñu tontu ko. ñu tontu ko waaw. laajte na laajte boo xam ne du moom doo ko wax am na ñeneen ñu ko bind. di ruumandaat que ne euh, Marine Le Pen bokk ci ñuy yuutu pour nekk président wu France bokk ci ñi nga xam ni dañoo rasiste bëggul nit ku ñuul. Marie waaw Marie Le Pen moom du ku baax man de yàlla bu mu jiite France laay ñaan. Ah. ndax moom dafa affiché wu ne moom bëggul nit ku ñuul. xam naa mook président Tunisie bi mën nañu ànd. nga xam ne ñu ngay lakkal nit ñu ñuul ñi. mais Marie Le Pen ñëw na Sénégal ci ñëw boo xam ne ñëw bu discret la benn. Mhm. mu delluwaat ci dellu bu agi bu Soumaré def ay révélation ne dégg na ñu naan hmm. président jox na ko valeur u sept milliards muy laaj président ne ko ndax loolu am na su dee am na lan moo tax hmm. mais am na ñu ma gis ñu koy ŋàññi ci laaj boobu mais bu Soumaré li mu def man jàpp naa ne Sénégal yëpp la ko defal te dafa mérito ñu tontu ko parce que bu Soumaré du benn waay buy taxawal cu mbedd mi de nit bu ah. sérieux la homme politique la dëgg la mais ah. xam ngeen ne homme politique bu sérieux Agibou Soumaré doo ko dégg ci ay détails. dëgg la ba ñu paree ci nguur gi ba léegi dafa mel ni ku effacé wu. si li tax lii mu mën ci duut baaraam ne na leer. Hmm. mooy am na lu mu gis. ah ma jàpp ne day ruube. ah non loolu du non Agibou du koy ruube. léegi 7 milliards fan la ko président Sall di jëlee ak fi mi toll di ko joxe rawatina candidat bu nekk France ñoo xam ni kii wax nga ko léegi dafa affiché wu que ni mu bëggul der bu ñuul. waaw mais nag dafa laaj dafa laaj daa méngoo ñu tontu ko xam nga ñun choix mooy malheureusement ñun suñu gouvernants yi dañ ñu nawloowul Mm. mais kii laajte li muy laaj alalam la waaw sénégalais yi tey dañu am sañ-sañu laaj président Macky Sall xaalis bi fan la jógee est-ce que am na wala amul parce que seen alal la mais ñun dañuy réer naan la way maandul mais maandu ci loo moomul mais li nga moom yow. Mm. ñun sénégalais yi ñoo moom alal ji. Mm-hmm. mi ngi mel ni choix bu yow nga dénk ma xaalis. waaw dénk mu boutique bii. Mm. nga xëy gis may saax saaxee alal mais amoo sañ-sañ ñëw ne waa imam yow li ma la dénk fan la tool ak nu mu demee. soo ma ko xamal non choix bu maandul. maandu ci sa alal yow li nga moom c'est-à-dire yi question yi ñuy laajte ñoo ko moom képp kuy gouverner fii ministre nga député nga président nga maire nga loo mën a doon sénégalais yi dañu am sañ-sañu xëy dégg dara lu leerul ci li ñu la dénk ñu ñu bind ne li mii diw sàngam dégg nañu nangam ak nangam ci alal ji nu mu demee nga bind ne loolu am na wala amul c'est très facile su fekkee li mu wax amul mais nañ ko tontu. mais loolu boo ko laajee fii boo ci kaso waaw te yow sa alal nga ko dénk. waaw yaa dénk waaw loolu. loolu c'est catastrophique ñun gis nañ fi temps Ablaye Wade. waaw borom maletu xaalis ba damay fàtte xaw ma Ségura la woon. xaw ma waaw Alexis Ségura. waaw Alexis Ségura. Mm-hmm. mais Ablaye daf ko joxoon 500 millions loolu juróon fi coow loo xam ne ba ba dañoo mujj delloo xaalis bi. mais bi mu koy jox kenn yëgu ko. Mm-hmm. mais question yi ñu posé woon. boobu nag presse baa ngi nekk presse. Mm-hmm. waaw boobu presse bi. mu ngi nekk presse boobu presse bi moom vraiment dama yàlla baal bokkul alimentaire bi am léegi. boobu presse bi ñoo porté woon combat bi. Mhm. malheureusement tey lii ak agi bu wax bu ko waxoon ci guddi bët set. Mhm. investigateurs yëpp dañ investigateurs yëpp dañu waroon a jóg. Mhm. gëstu ji li mu wax. Ah. parce que léegi changement bu li xew man daal journaliste yi luy seen liggéey man jaaxal na ma. na ma ah, yàlla jégal journaliste yi ku ci wax léegi ñu tëj la. Pam Ndiaye ngi ni mi ci kaso bi. waaw gis nga rek Pam Alé génn barki démb. waaw te moom nee nañ ko limite nee nañ ko lii bul fii. tee nañ passeport diplomate am lépp fooy waxee. waa mais nag investigation seen métier la mi ngi mel ne ab docteur nga ne ko doo faj. d'accord investigation métier am journaliste la ñoom heure bu ñu gisee ay indice hmm. dañu war a jël seen pilim gëstu ji est-ce que lii am na wala amul luñ ci xam ñu ñëw binduñu ñu porté ko mais dañuy toog léegi ay homme politique ñooy def ay révélation hmm. ñu ngi tudd Bougane dinañ ci ñëw léegi. waaw bu ñu defee révélation bi ni mu ko waxee noonu la ko journal bi coupatee tegaat ko ni diw nee na nangam daal di jël neutre maandu dëgg la non journaliste bi loolu du. ah dañoo war a xóotal mbir mi dañuy xootal moom bu joxee ay indice rek yow da ngay topp yoon yooyu gëstu ji ba xam lii am na wala amul mais malheureusement dañuy xëy toog seen plateau boo waxee ñu jottale ko ah diw de moo ko wax non loolu du rôle journaliste. kon daal weddi woo agi bu ci li mu laaj. non non man dama d'accord ak moom. Hmm. parce que président Macky Sall nag change bi bii mooy ñetti yoon xaw ma ñaari yoon ñu di ko laaj ay milliards. yaa ngi fàttali sept milliards u Taïwan. Taïwan boobu Idrissa Seck mii moo ko laajoon. laajoon na ko loolu ba léegi amuñ ci réponse bi mu toogee def déclaration patrimoine dañ na am na huit milliards gars yi naan fu mu ko jëlee. waaw loolu amul réponse nee na am na loo ne Ablaye Wade doog ko may. voilà <laughs> Ablaye Wade moom. Ablaye Wade moom après li mu wax ñëpp ko moom yàlla mooy fan waaye sañ na trop. Uh-huh. beneen bi ci des mooy. Mm-hmm. bii mu mujjee génn. mais nañ tontu dafa laaj est-ce que am na wala amul su dee am na lan moo tax. Mm-hmm. mais ne ko amul mu jeex. est-ce que lebaluñ ko nga ne ko am na mais tollul noonu. nii la toll parce que ñiy laaj seen alal la ñuy laajte. te dañ ko koo lebal. te dañ ko koo lebal voilà. mais wax dëgg yàlla man jàpp naa ne fi ñu bëgg a yegg ba nit ñi li ñu leen dénk amatuñu sañ-sañu wax ci loolu nekkatul république. loolu moom affaire royaume la. ab buur dong moo sañ a toog ne kenn du ko laaj ñi ngay financé mais président. Mm-hmm. président dañ ko waral laaj. lin la dénk nu mu demee muy def ay tontoom. député bi dañ ko ko war a laaj maire bi mais léegi kenn sañul laaj loo. te boo enfoncé waxal sa bopp ñu ne ah diffamation ngay def. waaw xaaral yow léegi xaaral ñu yónnee la citation nga dëggal li nga wax wala déet. te agi bi sax bul dem ba ba ba jàpp ni duñu ñu xëy indil ko ay dossier xam nga ah. Sénégal fii moom boo waxee di kilifa rek du ma bett na léegi ñu génne la dossier du ma bul fàtte ni na fii tànk voilà ah. du ma bett ñu xëy ñu ne agi bu ñu ngi koy tudd ci scandale sangam sàngam sangam xam nga loolu nag day dem ba après day soof mhm. bu dee ku wax lu wuuteeg lu gouvernement bi bëgg rek ñu ker yàlla ab dossier teg mhm. pour wan nit ñi ne leen kii di wax moom sax setul c'est-à-dire yow dindi woo li wax de da nga bëgg a wan ne moom gënuñoo set waaw mooy mi ngi wax ne dañoo sàcc mais moom tamit sàcc la mais loolu du lay wi. Ah, li muy wax amul loolu ngay fexe prouver. Farba loolu la waxoon mi mi voilà daan moom mii daana ñëw ma di ko jox muy jox bu weddee na wax. waxoon na ko ci Thierno Alassane Sall. waaw waaw kon mooy wane ni yéen ñii di wax kat jubu leen. waaw ko comme ñun niñ jubadee. waaw ah, way mais wax jooju dafa garaaw. c'est non mais nattuñu wax gravité wax ji. ba pare ne ko boo juboon. waaw li ma la doon jox doo ko jël. waaw kon lim ko kon lim ko doon jox moo jubul. baat booboo garaaw nag yow boo juboon loolu ma la doon jox doo ko jël kon li mu ko doon jox moo jubul ah, ngay jaay jub jub voilà mais Farba dafa dugal boppam mais ba léegi loolu après bàyyi nañ mu jàll noonu mu jeex man nee naa woon lii procureur dina woo Farba ñu ne naa ah, man loolu laa njot jàppoon naa ne procureur moom minimum bon dana auto-saisir ne ko ba nu mu de waxuñ ko mu tëj ko na ko laaj waaw ne ko xaalis bi ngeen doon joxante lan la fan la jóge fan la jógee est xaalisu askan wi la parce que moom nag procureur de la république la ñu wax moom république bi la fi nekkal. ñuy saytu seeni alal képp ku ci laale am na sañ-sañu autosaisir laaj la nu mu demee bu leeree ci boppam mu bàyyi la nga dem. d' mais kenn du ko woon. d' loolu nag ci am réew mu normal loolu c' est pas bon. macha